donc euh, donc monsieur euh, wax ci wàllum waaw euh, xeexu kaaraange gi moom yaakaar naa ne ñun bokkul ci suñu compétence yi nga xam ne moom lañu dénk waaye mënuñu ko mënuñu ko bàyyi parce que tamit aussi ñun ñoo fi nekkal population bi kon ñun ñoo war a demal plaidel population bi ci état bi. Eh, yàlla def na nag gis nañ ci ay fan Kër Massar agression bi bari na fi waaye tamit loolu li koy indi boo xoolee Kër Massar dafa bokk ci commune yi gën a rëy tey mën nañu wax ci région de Dakar moo ci ëpp. waaye ci nit tamit moo ci ëpp ay nit ndax chaque jour nit ñaa ngi dëkk si te ba tey arrêté guñu ñu ngi dëkk si mën nañ ne presque nit ñi ëpp nañ cinq 500000 habitants boole si aussi am nañu fi ay zone yoo xam ne mën naa ko tuddee ay zone yoo xam ne. saay-saay yi dañ ciy mën a laqatu muy forêt classée bii nga xam ne dafa taqaloo ak suñu dëkkuwaay yi loolu sax ñun mairie bi bindoon nañu état bi ñaanoon ko ne ko dañoo bëgg mu defaral ñu ñaari tali yu ñu séparé carrément ak fore bi ci droite ak ci gauche yëpp nga xam ne bu nekkee tali yu yaatu 30 mètres ñu miire forêt bi buñ parewee nit balaa muy tëb di jéggi tali bi di dem di def njaaxum di dawaat di jéggiwaat risque la dina wa am lu mu wàññi mais aussi dina wàññi embouteillage dëkk bi nu mu bëree ndax dëkk bi ni muy màggee dafa am doole. donc loolu ñu ngi koy dox mais boole si am nañ fi benn brigade de gendarmerie. brigade de gendarmerie boobu dañu yaakaar ne comme moo nekkee côté bi bu bëriwee élément dina mën a gérer côté forêt bi côté bi mais 13 éléments ñoo fa sur 136 quartiers 25 km carrés plus de 500 000 habitants mënul nekk ñooñu mënuñu sécuriser. ñu ne côté bële am na mbëbës mbëbës tamit bandi dañ fay làqatu te côté bii boo xoolee jëm géej mooy côté bi nga xam ne daanaka feesagul ci Kër Massar moo yor mbëbës mais tamit moo yor ay espace yoo xam ne nit ñi tamit ñu ngi dem di mansale di def ay cité yooyu di dëkk yooyu yëpp nag ay refus la ne euh, bandi yi mën nañ fa làqatu ñu jox leen foofu benn espace pour ñu defaral ñu fa benn commissariat temps yooyu Abdoulaye di Diallo fa nekkoon affaire demoon na sax ba dox mais depuis lors euh, waxuñu si mais bi amee ñu ci coowee Aly Ngouille Ndiaye ne confirmé nañu ne si fan yu gàtt danañ commencé pour tabax euh, commissariat bi yaakaar naa bu ñu tabaxee commissariat bi ñu boole ko ak euh, gendarmerie bi danañu dina tane mais aussi nag nit ñi dugal seen loxo ndax sécurité nag état mënul kenn ku ne mu tegal la benn police sa buntu kër. te gis nañ fi agression yu bari ci biir kër la amee. moo tax ñu ne na ci nit ñi jàpp bañ ko bàyyi ak rek ndax am na tey ay koñ yoo xam ne bu amoon comité de vigilance dana leen dimbale. te dina dimbale waale tamit état donc mhm. lolu dal yakar nañ né buñ ko défé inshallah allah danañu sécurité bi dina gëna ñong nah, donc mbëbët bi ngeen amone ngir ñu def ko Massar département foo lañ ci toll. Mm, waaw mbëbët bi mom luñu suñu bëgg-bëgg rek lañ wax parce que dañu gis né Kër Massar yaatu way bi ni mu yaato ben maire rek nek fi bëgg ko gérer da fay metti ci mom ndax euh, commune bo xamné ne ben département buñuy wax gédjaway ñaar yoon gédjaway ngi si 12 point ngi si 25. kon mën na ko ñaar bu ko benn maire bëggee yore bëgg ko gérer dafay metti ci moom donte sax ñun ñu ngi góorgóor di def lu ñu mën nag def ay effort considérable état tamit dañu jàppale mais dafay des mais dañu ne bu ñu ko defee département kenn ku nekk la ngay gérer dana yem yow maire bi di nga ko mën a gérer et puis département bi aussi ñëw nag coiffé maire yi gérer mu gën a baax waaye xam nañ ne loolu duñu forcer état pour mu def ko parce que pour mu def ko il faut ñu jàngat dëkk bi nañ koy jàngatee mooy xool est-ce que dëkk bi am na ay infrastructures yu mën a génne ay recettes ndax nga dagg ab commune ba pare amul sax as marché commune boobu du mën a am budget bu koy dundal du dund day dee donc bu ñu xoolee jàngat ko ni ñu koy découper jàngat infrastructure yi ci war a nekk pour ñu am ay ressource ba yooyu am bu amul état def ko su paree bu ñu ko defee département day nekk département buy dund commune yi dañuy dund département bi dund loolu la ñu bëgg léegi nag ci état la des ñun plaider rek lañ mën léegi nag état mooy ñëw xool ñun suñu proposition boobu ñu def jàngat ko xool nan la ñuy fexe ba loolu mu nekk nekk ci nekkin bu gën su mënul nekk léegi tamit aussi ñun état moom dina xam ne mënul nekk léegi heure bële la mën a nekk heure boobu ñu def ko mais du tee ñun suñu euh, bëgg-bëgg rek ak suñu vision rek la ñuy wax euh, euh, seen seen waaw man lu ma wax ne coalition benn Bokk Yaakaar na problème ndax coalition boo xam ne depuis ba ñuy waaj a def élection présidentielle ba bi ñu gañewee ba bi ñu àndee di gouverner ba léegi ñu ngi ànd tasuñu te élection bu fi mës a jaar gañe nañ ko ba ci élection bu mujj bii muy député yi nga xam ne tey boo demee assemblée 165 députés yi 127 yi ñoo ko moom 125 lañu amoon bi ñu demee am ñaar ñu ñu rejoindre foofu ci biir assemblée bi muy 127 kon loolu majorité écrasante la kon mënuñu wax ne coalition boobu moom ñi ngi yaakaar ne mi ngi gën a dox rek mais xëy na ay problème mënul ñàkk parce que politique moom surtout boo nekkee parti bu mag eh, yor réew day am li ñuy wax ay tendance li ñuy tuddee tendance par exemple exemple moom mën a joxe rek mën nga ñëw Kër Massa tey fekk fi ñoo xam ne dañu nekk APR ñu ne ñun duñu ànd ak Moussa Mbeng maire coordinateur du reconnaître ñu ko nangam ki mooy coordinateur légitime bi mais buñ ko reconnaîtreul dem ber seen saw di wax lu leen neex donc loolu mooy indi des fois ay conflits boo xoolee tey euh, coow li am démb ci problème jeunes yi noonu la demee man mii samay jeunes demuñu biñ ma waxee expliqué ma situation yi ni mu demee yëpp te man tamit kenn waxul ak man ci parti bi en tant que coordonnateur bi géré commune bi ndax ñun coordonnateur moo géré femmes yi moo géré jeunes yi moo géré cadres moo géré sages yi moo géré enseignants yi géré ñëpp lépp lu xew fenn yow la ñu war a njëkk a waxal mais waxuñoo ak man ñu ñëw jeunes yi demal seen bop ñewat di mawak wax lo xamne juru jurul jur jam man len tok len japp seen jamur ñu tok japp seen jamur ñan ko jox moy ñett wala ñent jeune yi fi nek di wëraalu di wax di dem ci réseaux sociaux yi di saga maire fi di def affaire indiscipline di wax lu len neex ñu dem jël ñoñu jox len buñ len ko joxé ñoñu duñ mobiliser parce que amuñu mbolo wax rek politique du wax mbolo la laaj te mbolo ma ngi fi parce que fi dans le Benno man li fi fii gérer fii ci Benno y' a trente entités politiques ñi ngi and jeune Benno ñi ngi and jeune APR ñi ngi am seen bureau di and ak man mi coordinateur reconnaître mo kon donc bu ñu joxee transport ñu dem mais duñ feesal estat moo tax démb stade ba feesul en plus xex amna parce que man na ma mën a samay jeune tok lañ ñu tok amna ko xam bu no ay jeune am togal dañ nan duñ tok dañuy dem defante ko ak ñom parce que moomuñu parti bi moomuñu xaalis bi jël ko daan dañuy dem damay dem loolu moo indi coow ñooñu bu àggee foofu nag jàkkaarloog ñu lay pour lu leen boole dafay dafay yomb donc yu mel noonu rek moo fi moo fi am eh, moo tax parti bi dañu war a ñi nga xam ne dañu indiscipliné ñu leen di yemale seen place waaw parti bi nag amul sanction amul dara moo tax lu neex waaye rek def waaw parenage bi foo moom ñun ñu ngi ci bay suñu waar bu baax vingt mille le président sas Kër Massar góorloo bi la ko jox eh, teewul ñun ñu ngi góor góorgóorlu bu ñu nee am plus de vingt mille sax ñu am ko actuellement fi ñu toll moom xam naa ne dépassé nañu ay dix mille ak i douze mille dépassé nañ ko bu baax. Eh, maa ngi pressing gars yi ndax ñu ngi toll ci jeexital bi pour que ñu góor góorgóorlu lu ñu am. ñu gaaw am peut-être les vingt mille même bu ñu ko amul sax tamit aussi ñu jege ko parce que dañ doon maximiser eh, te teewul commune bi dafa yaatu man dégg naa f ñu bëri ñu ay ministre ak ku waaw dégg naa loolu bon donc moo tax mais du tee ñun danañu man parrainé wu ma feneen mu am naa ay relation fu nekk nag fii ba Jolof ba Casamance fu ne mënoon naa fa yónnee ay fiche parrainé mais defuma ko dama ne comme maay man damay natt sama bopp ci sama dëkk fii laay toog parrainé ñi ma jox fiche yi ñuy parrainé dama naan leen ku nekkul Kër Massar bu leen ko jël am nañu fi ñun fi dëkk sax dëkk si te nekkuñu Kër Massar sax jëluma leen j'ai pris que Kër Massar su ma jëlee Kër Massar ba am ci plus de 10 000 parce que xam naa élection législative yi li fi voté woon ci Kër Massar yëpp dix mille personne la ñoo fi voté kon man su ma ñëwee parrainé plus de dix mille je sais que ne kon maa ngi am majorité dans la commune jusqu'à présent man parrainage bi dama ciy nataale sama bopp ci biir commune bi ndax élection locale ay raw gàddu la parti yu bëri ñooy xëccoo ku rawee benn nit sax jàll kon man su ma ñëwee am fi plus de dix mille rek ce qui est sûr et certain mooy commune bi ku ma ko mënti xëccool ma raw la donc man ci cadre boobu laa defee sama parrainage waaw. Euh, Karim na day ah, loolu de yàgg naa ko dégg Karim Wade day ñëw day ñëw moom yàgg naa ko dégg. moo tax euh, yooyu moom du débat seerul <laughs> débat. ba ñu gis Karim Wade rek. <laughs> Ousmane Sonko mi tëgg <laughs> euh, waaw Sonko moom xam nga gars yi ñu ngi koy wax rek man xam nga man bëgguma sax di tudd gars ndax di leen may buzz parce que maa moom ñoo bokk assemblée nationale xam naa ko. xëy na peut-être na ma koy xamee yow doo ko xamee beneen population du ko xamee mm. mais euh, gis naa ne kooku des na bu dee dafa bëgg nekk président sax des na parce que maturité bi mu bi mu bi mu war a am pour être président amu ko ndax la muy gis la may gis muy wane assemblée nationale du loolu lañ soxla ci chef d'état ñun soxla wuñu chef d'état boo xam ne tey yow toujours looy wax du dëkk kuy sos wala fen pour am la nga bëgg kooku bés boo ko falee da ngay am problème te man gis naa ne day day sos day def lu nekk pour li nga xam ne lay viser kon donc ñun politique bi ñu soxla du loolu ñun en tant que des jeunes di bëgg assurer alternance générationnelle ci ci Sénégal alternance générationnelle boobu dañ koy assurer avec des jeunes responsables des jeunes patriotes yu bëgg seen bëgg seen réew mais des jeunes compétents mais des jeunes yoo xam ne nag xoolal ci dëgg ak fulla ak fayda la ñuy dox man loolu laa gëm mais pas ci ay wax lu dul dëgg ak ay sos ak ay yeneen pour bëgg ak victimiser sa bopp pour nit ñi yërëm la voter la man gëwma loolu waaw